Ndaxate Fall yi nga andi émission seen gan présenté wu la ak suñu internet yi. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet bu Dakar yi di euh, présenté wu maa ngi tudd Abdou Lahad Fall kooku membre secrétariat COJER national euh, nekk coordonnateur COJER bu Diourbel di euh, rafetlu émission bi nga ngeen ma invité yéen Dakar di it site boo xam ne crédible ñaan suñu borom mu dem ba am rajo ak télé comme li ko ñëpp la defee. jërëjëf waaw nga ñëw ñëw ci actualité bi quoi ñu bëggoon nga expliqué ñu tuuti ci affaire Khalifa Sall bi nga ko gisee ndax démb bu ci dem ñu ngi dégg ni Tivaouane dañ teg benn médiation ba ñu ngi jëm ci liberté provisoire pour mu maire de Dakar dossier bi noonu ñu koy jàllale loolu la ñu gis ban message la. waaw li may njëkk a def mooy euh, loolu nga wax ni.

te it kër kër këru diine yëpp war nañ koo def ci lu mën a xew rek ci réew mi waxuma it ci wàllum politique rek waaye ci lu mën a xew rek ci réew mi war nañu def médiation bu mel noonu dossier Khalifa moo dal politicien politicien moom lu ko dal ci kawam rek faaw mu wax lu xew rek faaw mu wax bu ñu demee ci tudd loolu bu ñu demee ci génn bu ñu demee ci dëj loolu baaxu politicien la mais it Khalifa wax dëgg neex yàlla it élection législative képp ku xam format élection législative ni muy doxee pour le président Macky Sall coalition ndax euh, histoire élection Sénégal Dakar mais calculer ci lu en 2012 ak tey quatre élections yu bi élection présidentielle 2012 coalition Macky 2012 sans parti socialiste sans AFP moo gagné Dakar Sénégal Mau gagné Dakar ak président Macky Sall ñu jugee ci ñu dem élection municipale 2014 taxaw Dakar ak Khalifa gagné Dakar ah coalition benn bokk yaakaar am benn commune ñu jugee ca dem référendum président Macky Sall wàccaat Dakar gagné waat Dakar presque mën nañu ne ak à Dakar ñu jugee ca dem haut conseil au conseil des collectivités au conseil nag moom surtout logique bu élections municipale bon bien suite bi dama naan coalition bi am na lu ñu ci am ndax xalifa dafa gagné Dakar 19 communes la am 18 communes mais 18 communes yi conseil xalifa mu gagné ak 66 voix Donc, donc damay jàpp ni am na lu mu perte te li mu perte yi bari na bu ñu demaatee élection yi nit ñi dinañ donc pour danger. ci coalition benn waaw mais non yéen ak xeexoo bu métti bi ngeen nekk au au sein. non ñun suñu parti suñu parti tamit euh, li nga xam ne moom laay wax mooy euh, noonu la juddoo damay jàpp ni lu mën a xeexoo la juddoo mais ci coow la juddoo tey képp ku xam président Macky Sall xam APR da xam ni parti bi ci coow la juddoo ak métti tam ndax it euh, histoire histoire benn nit la damay koy faral di wax. c' est le choix euh, président Macky Sall bi nga xam ne dañ ko tooñ nangu ay yëfam mu gedd li ci des am ngorom ànd ñëpp ñu bool bokk ànd ak moom wër réew mi dem tey yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy joxe wóor jox ko wóor comme di ko suñu sang bu baax bu waxee moom Abdou Aziz APR structuré ko mais parti bu organisé la di tax ma

amuñu base politique amuñu dara te il faut que ñuy feeñ ci politique fan la ñuy feeñee mooy dañuy fexee di manipuler ay nit ci biir parti bi di leen xeexloo buñu boobu di am diw di existe la waaye tey boo xoolee ñiy xeex ci parti bi yëpp ñiy xeex ñëpp laa la wax tey boo leen tegee kenn ku ci nekk dëkk ba nga dëkk nekk fa conseil municipal. xanaa loolu moo indi problème conseil bi ngeen bokk yéen ba ndaw si ñu jàpp ko dugal ko ci kaso bi ba kàddu non loolu problème mu COJER COJER dafa am euh, benn programme bu ñu déroulé au niveau national dem nañ Fatick euh, dem euh, Ziguinchor dem nañ Saint-Louis ñu ngi waajal dem Louga dañoo demoon benn dëkk bu ñuy wax Fimela maire maire Fimela Karim Seka moo organise ak jeune Fimela yi COJER bu Fimela ñu organisé woon benn manifestation invité ci la coordonnatrice nationale Thérèse Faye bi nga xam ni depuis ñu ko joxee ba tey ñu ngi koy déroulé ndax it ñu doon ñu actualité politique boo ko dégg dégg ko OGM. la la limite d'âge président Macky Sall wax na ci ñun ñëpp nee naa la APR histoire président Macky Sall. kon président Macky Sall mu nekk candidat moo koy topp. waaw président Macky Sall moo tax wax Sénégal yi dégg mu wax mu wax Thérèse lu mu musta wax nit te Sénégal yi di ko dégg waxu ko ci Sall waxu ko ci fenn ci ay ci public la tax jeunes yëpp taxaw foofu la fa nekkoon ci jeune mat nañu mille cinq cent mu ne leen Thérèse Faye mii maa ko tàmm mu jiite conseil te fii ak deux mille dix neuf bi ma ko changé kon nag boo bu nekkee da ngaa nekk ci benn parti ñuy am discipline de parti pour man war ngaa mën a respecter.